بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر continué waat fa ñu yemoon te njàng mi yar naa keroog jàngoon nañ lu xaw a bari tey ñu xoolaat lañ jàngoon ba xam a ngeen ñu wala déggu leen ñu woon keroog ñu ngi jàngoon xarafu baa ñu ni baax dañoo waxoon ni baa liñ njëkk a def mooy présenter leen masque yi am won leen masque yi nga xam ne moo am keroog moom lañ njëkk a def won leen xëcc yi nga xam ne moo am ñetti xëcc moo am wanoon nañ leen ko masque yi ngeen jàkkaarlool moo am teewoon nañ leen kaamil ba kaamil bi jeex moo fi ne jàngoon nañ xaraf bi xaraf bi moo tudd baax moom lañuy jàng ba tey jeexagut waxoon nañ boo commencé benn masque ci kaw ba doon soo commencé benn masque ci suuf bi lay doon soo commencé benn masque lonk bu doon waxoon nañ boo ko xëccee masque benn masque ci kaw baa lay doon waxoon nañ boo ko xëccee ak waaw masque benn masque ci suuf bu lay doon waxoon nañ boo ko masque masque ak lonk xëcc ko ak yaa looy am bi kon baa buñ ko masque ci kaw xëcc ko ak alif baa lay doon buñ ko masque ci suuf xëcc ko ak yaa bii lay doon suñ ko masque benn masque lonk xëcc ko ak waaw buu lay doon loolu mooy liñ jàngoon suñ mbind ma le passé suñ mbindum tey nag ba tey ci baa lay doon waaye baa moom moo jeexagul ba tey daa am ay façon masque yu bari moom lañu leen bëgg a leeral léegi baa xarafu baa lii biñ commencé benn masque ci kaw bala doonoon bala doonoon ñu xëccoon ko mu nekk baa alif gi lañ jël xëcce ko ko mu nekk baa tey nag dañ ciy dolli bii lañuy jël mooy benn bañ ko maasoon dañ ciy dolli ba baneen ñu am ban ban baa suñ ko maasee ñaari maska ñaari maska ci kaw xëcce ko alif ban ban lay doon baa suñ ko maasee ñaari maska ci kaw xëcce ko alif ban lay doon léegi ñu ñëwaat ba tey ci baax jeexagut ñu ni baax suñ ko maasee ñaari maska ci suuf bin lay doon baax suñ ko ñaari ñaari maska ci suuf bin lay doon ba tey ñu ñëwaat ci baax baa suñ ko commencé benn maska ñaari maska yi lonk bun lay doon lay doon baa suñ commencé ñaari maska yet ci kaw xëcc ko ban lay doon baa suñ ko ñaaree commencé ñaari masque ci suuf bin lay doon baa buñ ko maasee ñetti masque ci kaw ñaari masque lonk bun lay doon hmm? dégg ngeen leen wax déglu leen bu baax li ma wax su ma noppee ngeen waxaat ko baa suñ ko xëccee ak alif giñ leen wanoon fii masque ñaari masque ci kaw ban lay doon baa suñ ko xëccee alif masque ñaari masque ci kaw ban lay doon baa suñ commencé ñaari masque ci suuf bin lay doon baa suñ ko commencé ñaari masque ci suuf bin lay doon baa suñ ko commencé ñaari masque lonk bun lay doon baa suñ commencé ñaari masque lonk bun lay doon tey ma waxee ngeen wax ngeen dégg wax ba xam ma xool baxam xam ngeen li ma waxoon déet baa buñ ko xëccee alif masque ñaari masque ci kaw ban lay doon baa buñ ko xëccee alif masque ñaari masque ci kaw ban lay doon baa buñ ko ñu ñaari masque ci suuf bin lay doon baa buñ ko maasee ñaari masque ci suuf bin lay doon baa buñ ko maasee ñaari maas ka lonk ci kaw bun lay doon baa buñ ko maasee ñaari maas ka ci kaw bun lay doon baa buñ ko xaccee alif maas ko ñaari maas ka ci kaw ban lay doon baa buñ ko maasee ñaari maas ka ci suuf bin lay doon baa buñ ko maasee ñaari maska lonku ci kaw bun lay doon aca wax leen ma dégg ba xam li ma wax teewlu ngeen ko wala teewluwu leen ko walla man ngeen ko wala manu leen ko aca waxaat leen ko waxaat leen ma dégg acca waxaat leen ko waxaat leen ko mhm. leer na léegi ngeen déglu ma jaaraat ngeen xool ba xam ma am yu ma leen laaj ci biir ngeen déglu bu baax bu dee yéen a ngi yor dara seen big di bind ngeen bind bu dee yéen ngi seetaan ngeen seetaan te déglu bu baax baa suñ ko xëccee alif maas ñaari maas ci kaw ban lay doon ban baa buñ ko maasee ñaari maas ko ci suuf bin lay doon baa suñ commencé ñaari masque lonk bun lay doon léegi jàngoon nañ bii jàng bii tey bañ lañ jàng bii ak bii ak bii ñett yi jàlloon na léegi jël nañ bii jël bii jël bii biñ jàngee ni ñaari masque yi fu muy nekk toujours foo koy fekk ci kaw rek la mën a nekk mën naa nekk fan mën naa nekk ci suuf ndax gis nga nii bu nekkee ci kaw mën naa ne nangu nañ ko mu doon ñaar ci kaw mu nekk ñaar ci suuf bii ndax dina nekk ci suuf su nekkee benn dina nekk ci suuf su nekkee ñaar dina nekk ci suuf kon bii du mas a nekk ci suuf mën naa doon benn nekk ci kaw jàngoon ngeen ko mën naa doon ñaar tey nekk ci kaw ñaar yi nag bi mën nañoo nekk ñaar doon doon ñaar nekk ci kaw mën nañoo doon ñaar nekk ci suuf niki suñ bindu tay bi ni ngeen ko gisee suñ bindu tay bi jàng nañ ñaari masque yi nekk ci kaw jàng ko ci suuf jàng ñaari masque lonk waaye bu nekk ak nañ koy woowee du nu la neex woowee ko jàngoon ngeen tam masque yi ñu dese ñaari masque yi moo ñu dese léegi xëcc yi itam jàngaloon nañ leen ko wanoon nañ leen ñaata xëcc moo am ñaata xëcc moo am ah? alif waaw yaa léegi xëcc yi yëpp biñ ko jàngee ba tey daa mel ni benn rekk moo ci ñëwagun muy alif alif rek lañ ci jàngagun mu xëcc kon tey war nañoo ñëw indi xëcc yépp eggale ko ndax alif rek ngeen fi gisagun mu xëcc bii xëccagut ngeen gis bii xëccagut ngeen gis bii rek moo xëcc ngeen gis muy alif ndax li tax mu xëcc maska yi kaw lay xëcc alif maska kaw lay xëcc mën naa xëcc benn mën naa xëcc ñaar xëccoon na benn ca bind bee paase mooy fañ ni woon baa tey mu xëccaat ñaari maska tudd ban léegi dañ koy jëlaat léegi jëlaat beneen eggale yi ci des benn yoon baa buñ ko sàddaa sàdda li sàdda la tudd baa buñ ko sàddaa baa buñ ko sàddaa ab lay doon ab ab baa buñ ko sàddaa ab lay doon ab ñu ni baa buñ ko maasee masque ak néeg buñ ko maasee masque ak néeg ab lay doon kon ñaar yi niroo nañ de dafa mel ni dañ ñi fii baa buñ commencé masque sadda sadda la tudd sadda ab lay doon ñuy waat fii ni la baa buñ commencé masque ak néeg ab lay doon kon ñaar yi lu jar a xàmmee la niroo nañ ci waxin waaye bokkuñu ci mbindin waaye foo leen fekk rek sadda la tudd sadda fii dañ ko néeg dañ ko ni mu def nii ma waral ñu koy woowee néeg fii dañ koy woowee néeg fii dañu koy woowee sàdda waaye ñoo bokk lu ñuy firi seen njariñ benn la ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy njariñ yëpp ay maska la bii sàdda la tudd bii néeg jàngoon ngeen ko fële maska sàdda maska néeg baa buñ ko maasee maskak ak sàdda doon baa buñ ko maasee maska ak néeg ab lay doon ñoom ñaar ñooy bokk nuñ leen di woowee su nekkee ci faneen yi na foofu tudd lay tudd ñoom ñaar ñoo bokk nuñ leen di woowee waaye bokkuñu fu ñuy nekk duñ bokk fu ñuy nekk bii mën nga ko gis faneen bii nga gis ko faneen waaye jàppal ni gis nga fii niñ bokki nuñ leen di woowe waaye taxul ñu bokk am nañ lu leen wuutale te boo demee ba ci kanam dina leer dañuy ñëwaat baa baa suñ ko xëccee alif mas ko ñaari masque ci kaw ban lay doon baa suñ ko maasee ñaari masque ci suuf bin lay doon baa suñ ko maasee ñaari masque néeg bun lay doon baa buñ ko sàdda ab lay doon baa buñ ko maasee masque ak néeg ab lay doon aca waxaat leen mu dégg ba xam commencé ñaari maskalon bun lay doon baa buñ commencé ñeent masasat bon lay abbu lay doon baa suñ commencé benn maska sat abbu lay doon baa suñ commencé benn maska ñeent abbu lay doon baa suñ commencé ñaari maska bal lay doon baa suñ commencé ñaari maska bind lay doon baa ñu commencé ñaari masque yi si lay doon ba ñu commencé ñaari masque law lay doon ba ñu commencé masque sax abu lay doon ba ñu commencé masque de abu lay doon. day déglu bu baax day xool fi ngeen di jàng ndax ngeen xam bu leen ci raw moom beneen yoon rek ba ngeen di xool fii ba buñ ko xëccee. alif masque ñaari masque ci kaw ban lay doon baa suñ ko maasee ñaari masque ci suuf bin lay doon baa buñ ko maasee ñaari masque lonk bun lay doon baa buñ ko sàddaa ab doon baa buñ ko maasee masque ak nit ab lay doon baa buñ ko maasee ñaari masque ci suuf bin lay doon ba suñ ko maase ñaari maas ko lonk buur lay doon ba suñ ko ban lay doon ba suñ ko sartal sant abu lay doon ba suñ ko maase maas ko ne abu lay doon waxaatal leen maas kay maska law ci kaw ñaari maska lonku benn maska sàdda benn maska néeg benn maska kaw benn maska suuf ñaari maska kaw ñaari maska suuf benn maska lonku ñaari maska lonku benn maska sàdda benn maska néeg alif waaw yaa ba ba day xëcc benn di xëcc. ñaar. na tey fii di xëcc. ñaar bii lu muy xëcc masque lan. waaw masque lu muy xëcc. waaw masque lu muy xëcc. masque lonk. waaw lu muy xëcc. ndax dina xëcc bii. du xëcc bii du xëcc bii du xëcc bii du xëcc bii waaw bii rek lay xëcc benn masque bi sax la mën a xëcc waaye mënta xëcc ñaari yaa mi ngi xëcc masque suuf benn masque rek la mën a xëcc moom tam muy masque ak suuf loolu lu am solo la xàmmee leen ko lu am solo la yi xëccaan yi xëccaan yi masque yi muy xëcc da ngeen koo war a xam xëccaan yi ban masque lay xëcc ndax dina xëcc bii walla du xëcc bii ndax bu doonee ñaar dina ko xëcc wala bu doonee benn dina ko xëcc lu am solo la alif masque kaw lay xëcc mën naa xëcc benn mën naa xëcc ñaar waaw benn masque ak lonku la mën a xëcc mënta xëcc ñaari mënta xëcc leneen moom dafa wéet lii kese lay xëcc masque ak lonku te benn bi rek lay xëcc yaa masque ak suuf lay xëcc te benn masque ak suuf rek la mën a xëcc li ma lay wax bàyyi leen ko xel bu baax lu am solo la xëcc yi am war nañoo xam xëcc bu ne lan lay xëcc ndax dina xëcc bii wala du xëcc bii ndax dina xëcc benn wala ñaar lay xëcc ngeen déglu bu baax sama noppee ngeen wax alif alif mën naa xëcc ci benn masque kaw mën naa xëcc ci ñaari masque yi kaw moom rekk lay xëcc waaw benn masque lonk rek la mën a xëcc du xëcc la neen bii kese bu nekkee ñaar du ko xëcc bii rek la mën a xëcc yaa benn masque ak suuf rek la mën a xëcc mënta xëcc la neen léegi ma laaj benn benn ñaar alif te waaw lu man mu lonku benn bi wala ñaar yi benn bi kon waaw benn rek la mën a xëcc mooy ma benn masque lonku waaye mën a benn bi kon yaa benn masque rek la mën a xëcc mooy masque suuf lu am solo xam ne masque yi xam ne xëcc yi kon yaakaar naa suñu bind tey ci xarafu baa dafa mel ni jàng nañ masque yi ñu wane woon yépp ni moo am jël nañ ko ci baa topp nañ ko ba daanaka mën nañ ne jeex na waaye ay leeral yu ndaw moo ci des ay leeral yu tuuti moo ci des ndax ndax jàng nañ bi masque gi bi bii nag bii bii bii li gën a am solo nag du jàng rek dem bàyyi lépp solo mooy luñ jàng nañ koy fexe xam lu mu tuuti tuuti ñu mën cee jariñu kon yaakaar naa suñ bindu tey ci njàngum liifantu ci arafu baa lii la woon ñu fas yéene yamale bind fii bind bi fii tey ba beneen yoon xanaa ñu jëm ci li nga xam ne moom lañ daan dolli ci émission bi tamit seen émission rek nga xam ne yéen a ko moom muy yóbbal ndax daa am solo trop jaay la dañ naan buñ la jaay ba pare may la buñaa te buñaa bi yaakaar naa ñëpp a ko soxla mooy li jëm ci seen li mënta ñàkk ci yéen de fardul ayni nit ki ni mu war a jaamoo yàlla yaakaar naa am na lu ñu soxna soxna as jotoon a jàllale ci ndox mu laab ndox man moo mën a jàpp waxoon nañu ko bëgg a jàpp wala mu bëgg a sangu farata wala mu xayta ba noppi wala mu tuur ndox ba noppi wala sobe taq ko mu bëgg koo raxas war naa wut ndox mu laab ni dañ koo laajoon ni ko ndox mu moo di lan mu ni ndox mu moo di ndox moo xam ni saful lu dul li ndox di saf xeeñul lu dul li ndox di xeeñ melul lu dul li ndox di mel soxnaa sa du foofu nga yemoon mu ni kon boo gisee am ndox mu mel na neen wala nga mos ko mu saf laneen wala nga fóon ko mu xeeñ laneen kon mënoo cee jàpp mënoo cee sangu farata mënoo cee raxas sa si la takk kon soxna Astu yaakaar naa foofu lañ yemoon keroog ñu àggaleel ñu lan moo des ci ndox mu laab ndax mën ngaa gis am ndox mu mel na neen walla nga fóon ko mel ne ne kon mënoo ci mënoo ci sangu mënoo raxas sa bese la taq léegi sobe lañ lay laaj nag bu fekkee dafa yàgg fi barab suuf yi tam bu ca tàbbee baaxaram ba tey baax na bu fekkee dangaa xamul lu ko soppi dana yàq ndox wala de xamal ne baax na këf gi ngay duyee ndox yi tam bu dee moo ko xaw a soppi tuuti ba tey baax na yii yépp nag ak yépp yu neexu tamaytu xamal ne du yàq ndox ma am ndox mu niin wala mu saf wala mu xeeñ laj wala sax yu mel noonu mu ne suuf bu ca tàbbee mbaax xorom ba tey baax na bu fekkee danga xamul yàq ndox mi li ko soppi dana ko yàq wala déet mu ni ba tey baax na kon ñoo ngi leen yemal foofu beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmani rahim wal asri innal الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر